bismillah rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk yi ginnaaw bi sante borom bi subhaanahu wa taala ñu julli ci yonente bi salallahu alayhi ngi ñaan mbokk yëpp ñu jéggal ñu euh, jéggal nañ képp koo xam ne amaana mosoon nañ fi wax loo xam ne da koo naqari euh, ndax xam ne nekkul woon suñu yéene suñu yéene rek moo nekkoon defar nit nag matul nit léeg-léeg euh, day juum léeg mu tooñ loolu ñu ngi ci ñaan ñëpp ñu jégal ñu waaye dafa am audio mu déglu muy audio boo xam ne yaakaar na ko ko def mooy Lamine Sall Lamine sàll ci biir waxam wax na ba ne weer bi feeñ na nangam feeñ na nangam feeñ na nangam ba wax ci ay waxam ne daa am ñoo xam ne dañoo nëbb sëñ bi information bi waat euh, wax ma ne waa Tiwaawoon yëg nañ ko waaye ñoom dañoo bëgg a topp xawma ñeneen ñi Lamine Sall wax ji nga wax wax ji da koy wax da ñame wax ji bàyyi di raay yéen da ngeen di wane ni benn ngeen te doo leen benn yéen suuf yi dooleen leen benn mënoo leen nekk benn taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta parce que bi ngeen xamee ni gis ngeen ahlus sunna maanaam seen daawa commencé jëm ca kanam seen daawa commencé tasaaroo nit ñi dajaloon nañ jéem a nekk benn ay pas-pas fu ñu wuutee bennoo mënu fa am fu ay pas-pas wuutee bennoo day jafe mu am fa li nga waroon wax Lamine Sall mooy lan mooy nga wax peuple sénégalais bi ne leen nañu bàyyi ay nit yu ñuy topp te ñu topp yàlla man yaakaar naa lool nga waroon leeral waaye wax bi nga wax ni dañoo nëbb information sëñ bi parce que xam nañ ni sëñ bi bu ko yëgoon dina joxe ndigal loolu du wax ji de xam nga wax ji mooy lan lu tax ñuy xaar ba sëñ bi di joxe ndigal lu tax ñuy xaar mbir boo xam ne jaamu yàlla la yàlla lañ ci war a jaamu yonent bi salaa sala wax suumu li li ruyatihi wa boo leen gisee ngeen woor boo leen gisee ngeen wori gis bi nag bu fekkee ay jullit yu maandu ay jullit gis nañ ne weer bi feeñ na comme su boobaa day war ci ñeneen ñëpp ñu woor wala ñu wari yaa wax ci sa biir wax ne weer bi feeñ na fii nga xam ni moom mooy fora comme li nga waroon wax mooy nga jàllale message population sénégalais bi xamal leen ne leen nañu bàyyi nit yu ñuy topp nañu bàyyi nit yoo xam ne ñoom la ñuy jiital ci digle yàlla ak yonentaam yaakaar naa loolu moo war nekk message mais nañ bàyyi maslaha bi ak raayante bi maslaha bi ak raayante bi jëmeluñu fenn li nga war a wax mooy parce que gis naa ni bi ngay wax ñenn ñi ñame nga nekk ñame nga nga direct da direct bi ngay wax ak mais bi ngay wax beneen beneen tarixa bi ci jiite tarixa bi yaa ngi koy jox ngant yaa ngi koy jéem a jox ngant te loolu gis naa dafa jaaduwul li nga war a wax mooy lan mooy nit ñi nañu jiital waxu yàlla ci ak yonentaam nañu jiital ndigalu yàlla ak yonentaam ci ndigalu keneen mun nañu wax sax li kulli baladin ruyatuhu mun nañ ko wax boobu masala la boobu benn kii la madhab la waaye muskila bi mooy naka la weer di feeñee biir Sénégal nga taxaw di jàppal ngant ab waaye naan dafa yëgul information bi waxal ak po bu yëg na ko yëgu ko leneen la mais waxal ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw kooku wala ñoo bootu ci ginnaaw kooku lancer message xamal leen ni topp leen yàlla ngeen bañ a topp ay nit jiital leen waxu yàlla ci waxu nit nit kii amul lu muy dogal ci diine amul ndigal bu muy joxe ci diine amul ndigal bu muy tere ci diine ndigal ci diine ci yàlla lay jóge ak yonentaam yaakaar naa lool moo waroon nekk wax ji maa ngi jéggul nag ci kàddu yi waaye benn leeral la woon rek ab seetlu boo xam ne defoon naa ko te kon que nu ñuy waxee euh, di mujjee ab leeral ba na ko war a leeral ci saa si di bàyyi ba mu jàll yenn borom xam ne nañ laaya juus moo tax ñuy leeral comme Lamine Sall lu ma lay mooy jàkkaarloog ñii nga xam ne ñoom ñoo bootu ci ginnaaw kooku xamal leen ni yàlla ak yonentam bu ñu àddoo ci benn mbir waruñu ci xaar ndigalu keneen yaa ma gën a jàng xam nga aay xam nga xadiis yi wallahu alam